waaw déjà kuy dem kuy dem waroon nostalgique même kii bu muy dem déjà tu sens nettement que day dem mais nekkul dem bi moom moo ko choisir il a été contraint au départ. Hmm. c'est important noo koy xamee nit buy dem fekk yéeneem la. Hmm. il va avec le sourire. mais bu fekkee da nga ko pousser à la porte comme moom c'est le cas da gis mu. fas gi day mu fas kanam bi. mooy li ko dal loolu moo indi mu commencé di naan oui je m'en mais il faut respecter les décisions de kan lay waxal il faut respecter les décisions de justice keroog keroog keroog je ne vais plus tolérer. le hmm. procureur en de mener des enquêtes. dem bi demul dañ ko pousse. dem xam nga yow. comme Senghor quand il partait ne kii. moo am volonté ne dem mhm. boo jógee mun nga maa ngi dem boobu sax la te su fekkee man maa la pousse maa ngi dem. Mhm. dama la sànni ci biti. ñan ñoo sànni ci biti. la pression populaire le peuple souverain moo tax ma ne le peuple souverain est une entité réelle elle est physiquement présente mm-hmm. ku tu l'apprendras